asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ci kaddu gi Aladji Malick TV seen xarit di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci ànd beeg ñun am na solo yàlla na jëm kanam ci information yi wér te wóor yi ngeen fii taataana tey revue de presse bi nag spécial la dana am ñeenti yëglikaay yu ñu jukkee fële ci Espagne waaye tamit fii réew dana fi jël ñaari yëglikaay yéen a jàpp ni yooye ñoo ci ëpp lu ñuy joxe information yi wér te ànd ceeg yéen bu baax a baax ndax daanaka tey suur di match la Sénégal mi ngi war. solo sama gars yi yoo xam ne yu ama am solo la ñu bàyyi looleen xel ci li nga xam ne mooy aimé bi la maximum de partage te yaakaar naa ne coppati li nga xam ne mooy sa commentaire ci lépp loo xam ne soob na la amul benn jafe-jafe fii ci Aladji Malick TV ci commentaire yeeg yooyu ndax ñun ñëpp ñoo bokk loolu dañuy mottalante match baa ngoogu Malawi Sénégal. Malawi nag mooy dalal équipe bi la di équipe bu kii la di Papa lool loolee nekk tey bu benn waxtu jotee nee naa leen match bi tey day teel a commencé ngeen bàyyi ko xel fi mu toll nii yaakaar naa ni compo officiel ba tamit danañ ci dikk ci xët wu yaato yaatu bu fekkente ni midi jot na ndax ñu àndandoo liggéey bu mucc ay bi nga xam ne moom lañ mébét ah, ci bisub tey jii ci équipe national bu Sénégal Papa ñuy xaar nag qualification historique boo xam ne moom mii di notre cher international dana ko def ak équipe bii nga xam ni moom la ñu tuddee Gaynde Njaay wàcc di mébétam di mébétub sénégalais yëpp di mébétum lii di fédération sénégalaise bu football moo tax it record yëglekaay lanu andi ni ko dàng ci xëta mu njëkk gis nga record mu andi ñancaw international waaye andi Papa Thiaw nag ca côté ndijoor ba nga xam ne yaakaar naa ni ba tey compo ak ñi nga xam ne ñoo war a départ nangu gu cee teg lu ndax moom moomee lu gën a bari fi mu ndax yaakaar naa ne Sénégal jàpp na ko xam fu nu jëm euh, doo euh, àgg a euh, yéenekaay bii di euh, record mu yuusuma jigéen record moo xam ne daanaka l'observateur ko jur kon moom moomee li mu tamit nee na buñ daanaka dañuy qualifié kon loolee jàpp na ci li xam ne moom la ñëpp xalaat nag kon il faut maanaam ñu gagné il faut ñu teg équipe boo xam ne a gagné la loolee tamit maanaam pour a garaaw boo xam ne gars yi pétition yi nag nañ ko moytu mais nañ teg lu leer défenseurs yi dëgër këcc ci ànd ak Kalidou Koulibaly militaire yi nag ñoom Habib Diarra ñoom ñëpp nanu ànd ci sa mbaxloo cant gi mat sëkk nag gars yi teg lu leer ndax nam nañ football boo xam ne nag ci kitàkka gi donte def ngeen ko ah, ci match bu njëkk bi waaye match bi ñu bëree bëri jàpp nañ ni match boobee na gën a ah, jaar yoon tegu ci temps Turbine Sport moom it ñëw na ci xëtam bu njëkk yaatal ko bu baax a baax Sénégal Malawi tey jii encore ah, bu benn waxtu jotee tey jii nga xam ne nag foofe ca Malawi tàng jëpp nag dana ko def waaye match ba digg bëccëg lay am digg bëccëg nag fii la koy amee ci réewum Sénégal waaye bu demee ci dëkk boobee lanu rawante nee naa leen dafa bari ay heure moo taxit ñoom ñi ngi ci ngoon mais ñun ñi ngi ci heure euh, midi pile bool pile yëglekaay yëpp nag yaatal ko baax baax waaye yëglekaay bi moom da cee moom gis nga équipe bu euh, kii di euh, Papa Thiaw entraînement bi nga xam ne def nañ ko démb moom yëglekaay bi andiwaale na ko waaye tamit yëglekaay bi tamit li mu andi lépp bari ci loo xam ne rëccu leen lenn mooy lii di entraînement bi démb dund ngeen en simultané ci Aladji Malick TV ci YouTube bi entraînement bi ak euh, li nga xam ne mooy conférence de presse bu Papa Thiaw ak kile di Nampalys Mendy dara rëccu leen ci kon yaakaar naa ni dana am solo bu baax a baax kon foofee bokk na ci fi yamandi ci li yëglikaay yi soqi ko ci Sénégal xanaa buñ fa jógee rek dañuy jéem a dugg ci linga xam ne daanaka moo nekk denduk Europe damay laal foofal naa gi Air Sénégal international gars yi ma li muy paan bari na mais naa ko jël rek parce que maanaam bay sa moomeel wala bay dunde moom la réew mi bëgg tayit moo xew yëglikaay bii di équipe nag la ñuy njëkkee ah, jaar ca France nag laal métro bi ndax foofee métro yi ñoo fa teg tànk match bi nga xam ne Espagne ah, doon na ko am wala France doon na ko am ak Belgique te France ah, jàpp Belgique daal di koy gagné ci match bu bari woon polémique démb ñëw nañ ci l'équipe yëglekaay nag indi ci ab photo Kolo mu Kolo Muani ah, muy ma jàpp ni moo def ab doublé maanaam yër kër gi la def yëraat ko moom mii di Kolo Muani di ab international ah, français boo xam ne ak daw làqu laa yaakaar ni moom la gën a nuru loolee tamit maanaam nekk euh, lii di xar baaxu équipe bii di France buñ fa jógee dañuy laalaat beneen métro dox ndànk nag njëkk fi nga xam ne mooy Barcelone équipe ba ña ngay préparé ginnaaw seen trêve international mi ngi bëgg a tas bu ko defee maanaam ñoom ñooñee ñu mën a euh, daje ak équipe bi daje ak supporters yi mën a waaj nag weekend bi nga xam ne moom mii di Barcelone buñ sukkandikoo ci Mundo Deportivo am nañ ci ay match yu yaatu Araujo nag maa ngi ko fi gis di gis ki nga xam ne mooy Gavé ak ñoom Fermi nag ñoom ñëpp nag fi mu toll nii carte gi day tasaar Ndakaaro gars yi dellusiwaat Espagne nag match lay waajal euh, bu vingt heures quarante cinq jotee fële ca réewum Espagne fii nag jàpp naa ne euh, am ma nga ca kaw. match ba Serbie lañ ci dajeel euh, solo bu baax a baax ndax ma ngay amee fële ca réewum Espagne ndax yaakaar naa ne match domicile dana baax ci ñoom yëglekaay bi di aas ñëw na ko ca kaw la ko coppati yëglekaay bi donte ci suuf am na ñëw waaye gars bari nag match bi lañ bëgg a xam nu muy demee moo koy teg loolee dina am solo bu baax a sport yi lakk ak wala ci réseau câbleur yi di ngeen mën a dund match boobee en exclusivité mu nekk match bu nar a am solo boo xam ne tamit mooy bu mujj balaa trêve internationale bi dañu daan ko ndànk nag dem ci beneen yëglekaay di marka yëglekaay moom it yaakaar naa euh, ci digg euh, li nga xam ne mooy ñax ma nekk Espagne démb la ñëw euh, nga xam ne ko sans Lamine Yamal ngeen gis ko mooy boobu entraînement kii di Carvajal tamit gis ngeen ni moom it yaakaar na kon yaakaar naa ni fi mu toll nii Espagne ay booye ko yor ginnaaw mi nga xam ne bokk na ci ñi ci gën a maanaam féete mag entraînement boobee am na solo waaye li ñuy waajal tey jii la bu 20h45 jotee heure Espagne mais 18h à 45 fii ci Ndakaaru bu ko defee ñu mën a waajal ñoom ñëpp seen match boo xam ni dina am solo bu baax a baax kon ñu bàyyi loolu ko xel match boobee tamit wax naa leen ñi koy teg loolee duñ ci dellusiwaat xanaa supporters yi mën a teel a darngu rek buñ seetaanee match Sénégal ba pare def ndànk nag dem xaar seen match équipe bi ndax yaakaar naa ni maanaam Espagne ab équipe bam bokk na ci yi nit ñi gën a siiwul uh, ci àdduna wala ngal kàpp lu ko waral mooy Barcelone ak équipe bi la di Real a yëglikaay bii di sport ñëw na ci waaye tamit ñëw na ci ponkal yi nga xam ni war na nañoo dellusiwaat ginnaaw trêve international bi ci kanam ma gis fa Dani Olmo gis fa ki nga xam ne mooy Gavi Gavi nag mi ngi piis pour bëgg a dellusiwaat gars yi ñaanal leen ko jàmm gars yeneen information ci kanam tuuti loole dana saxal compo officiel bu Sénégal jërë ngeen jëf ànd bi am na solo revue de presse bi la woon